waaw ba tax na euh, rubrique santé ak économie lañu dajale tey fii si plateau bi Maguette xam nga ni euh, euh, gis nañ ni phénomène bi nga xamante ni moo di immigration clandestine dafa nekk lu lëmbe réew mi instant jamono biñ toll nii daal mooy moo fi nekk actualité phare en fait bu ñuy bu ñuy bu bu ñu bëggee waxtaan surtout nag sur le plan économique dañuy gis ni dafa am récession économique bu day wax récession économique mooy li nga xamante ni ni soit day nekk ralentissement ou croissance économique bi wala mu nekk chute du PIB yaa ngi dégg dafa nekk loo xamante ni nii nag euh, mi ngi gàllankoor suñu réew mi ci côté bu nekk te loolu noonu am na lu ko jiitu lu ko jiitu mooy lan pandémie wu Covid 19 bi mm-hmm. am na secteur yu bëri yoo xamante ne nii daf ko daal di daf ko daal di gàllankoor am na ay entreprise yoo xamante ne dañu fayit mm-hmm. am na ay liggéeyukaay yoo xamante ne dañu mujj di wàññi seen personnel yi mm-hmm. xam nga loolu noonu yëpp mu daal wàcc fi nga xamante ne nii moo di euh, ci àdduna bi particulièrement nag Sénégal ñu dund ko dundin bu metti xam nga parce que nga xëy mu noo am sax looy dem liggéey jee wala nga am loo xamante ni moom ngay suturloo te au début danga ko doon am dafa metti yaa ngi dégg te jamono jii nii gis nañ ni tamit euh, jeunes yi li leen tax dem xam naa ñàkk liggéey bi la fii nii mm-hmm. noo ko jàngatee. waa Abibatu ban jàngat laa ci am nag euh, mooy euh, dëkk bi metti na metti goo xam ni pandémie bi comme ni nga ko waxee dafa laal secteur yu bari maanaam dafa touché wàllu économie bi trop moo tax jeunes yu bari tey préféré. jël gaal gi di dem waaye man de ma part personnelle pour man jël gaal du solution bi parce que bu fiy tëjee feneen fan bi teer yaa ngi fi lépp ngi fi jaaykat jaay kafe sax liggéey la 300000 yi ngay jël wala 200000 wala 400000 yi ngay jël di ko def ci immigration clandestine boo ko investir ci benn commerce mu jural la dara waaye nag comme li nga wax nag jeunes yi dañoo sonn xëy jàkkaarloog sa yaay 1000 francs boo ko jox pour mu ndekkee sax amoo ko en plus euh, pêcheurs yi ñoo ëpp ci ñi immigré ji géej gi problème am na parce que nee nañ état bi moo jël géej gi jaay ko tubaab yi tubaab yi ñooy napp jën yi léegi ñoom dinañ dem dugal seen gaal di mbaal mais cent francs sax duñ ko yóbbaale seen kër te loolu dafa metti dafa metti ci àdduna man moom de ma part personnelle je suis contre mais nag loolu moom du solution bi nañ leen créer ay emploi état bi na créer ay emploi dugal jeunes yi bu dee bay tool sax baax na ñu jëm ci am dara. waaye problème bi màgget mooy que jeunes yi lu ñuy bañ fii nii loolu la ñuy dem defi ji Europe. waa Abibatou nag looloo ma jaaxal. parce que jeune boo ni jeune boo ni demal euh, village ya nga dem bay ñu bañ te pourtant mais de bi tubaab yi soxla ci tool yi lañ leen jëmee loolu man problème boobu man je pose mooy jeunes yi lan moo tax ñuy nangu lële di def ay marchand ambulant tubaab yi di leen dàq dàqi police police tubaab yi di leen dàqi ñuy dund galère foofu pourquoi pas ñu investir fii liggéey jéem a suqali seen réew tamit. man bi ma ci gis mu gën ma métti mooy euh, xale bu jigéen ba nga xamante ni elle n'a que 14 ans nee yaayam moo ko jox xaalis pour mu dem dugg ci gaal gi gaal gi fan la teeree Mauritanie. am nañu problème pour ñu bisiwaat comment se fait-il que yow nga jël sa dombu jigen elle n'a même pas l'âge adulte amagul 18 ans mm-hmm. yow nga né dang kay passal pour moom mu dem lolu ban xalat ban parent moy def lolu jamono jii nii jeunes yi nga xamanteni ñu ngi ñu ngi ngi dem si géej gi dañoo bari mm-hmm. dañoo bari alors là té dafa nek lo xamanteni ni c'est déplorable c'est écœurant mm-hmm. ngay gis xalé bo xamanteni elle n'a que 14 ans say yaayam bi ko jur di yëkkati xaalis naan ko demal pourtant xaalis boobu noonu nga xamante ni nii moom nga koy jox yow amaana yow mënoon nga si liggéey dara mm-hmm. mënoon na am au moins loo si créé wala nga ne xale bi continuer sa jàng parce que lii laa la bëggal lii laa bëgg nga am fii laa bëgg nga yegg parce que xale dañuy wax ni da nga koy gunge comprendre nga mm-hmm. parce façon tamit parent yi am nañ ci responsabilité mm-hmm. am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ndax ndaxte euh, sa doom mu tàggu la nela la man kat liggéey naa lii damay dem dugg ci gaal gi nga bàyyi ko ci bu demee dee foofu noonu eh yow yaa ko gunge. mais Abibatou am na loo xam ne da nga ko réere parent yi bëri seen doom yi ngi leen di tàngu te pourtant chantier lañ leen wax fa leen jëm nekkul dañ leen di wax yaay wala papa damay dem immigré ji dañ leen di chantier laa jëm ñoom duñ ci yëg lu dul dee wala ñan àndaloon woo leen. ni leen euh, sa doom dafa duggoon ci gaal gi dafa dee te pourtant bu leen laaj demee pourtant de chantier la ma fi tàggu mais aussi je trouve irresponsable yaay bi nga xam ne dafa jël xaalisam jox ko doomam bu am 14 ans pour mu dem di immigré ji parce que l'islam dafa ni euh, euh, waajur bu nekk sàmm nga te ëllëg dina la laaj nan nga doon sàmmee say njaboot donc parents yi war nañu veiller à ce que xale yi lu ñuy dugg wala lu ñu fas def ñom ñu veillé ci xol ci seen bët bu baax baax. d'accord euh, façon parents yi moom am nañ ci part de responsabilité mm-hmm. bu mag parce que comme li nga wax léegi mm-hmm. xale yi dañuy nëbbatu seen parents yi mm-hmm. loolu tamit fautu parents yi la parce que bu nekkee yow doo doo doo tatafu sa doom di ko laaj di waxtaan ak moom wala amaana sax mayuloo ko kanam boo xamante ni mën na ñëw si yow ouvrir u waxtaan ak yow donc foofu noonu dafay indi benn problème parce que dafay am distance bu nekk yee ñaar seen diggante loolu war nañ ko xoolaat euh, comme li nga wax tamit état bi am na ci part de responsabilité pour eux. Mhm. comme li ngay wax xam nga ni la dernière fois amoon na benn benn benn recherche pour nous defoon man ak yow mhm. si si bateau yi nga ni surtout les bateaux chinois là nga mhm. xamante après c'est ay déchets toxiques la ñuy ñëw sorti ci géej gi léegi jën yi nga xamante ni moo fiy des jën yooyu noonu boo ko boo ko yow sax kan nga da ngay gis ni dread bu ñuul kukk kukk la. lay am alors là buñ ko feebar buñ ko lekkee feebar lay doon après yi nga xamante ni nii mooy yu baax yi yobu. ñuy c'est très normal molly. yi di kaas loolu parce que du yoon selon man c'est pas une raison mais tamit nga jël sa bopp tayle ko ci géej te dañ lay wax ni géej amul bànqaas màgget dund bi dafa neex de amul bànqaas du yoon te du yoon mais euh, fi nga fi nga fi nga daaneele léegi lay rebondir parce que euh, xale yi dañ amul choix dañ amul choix vraiment man maa ngi nii suñu kër ba nga jee togg jën xaw ma ban 1900 la toggatuñu jën dañuy xëy di wër ci marché bi bëgg jën bu togg duñ ko am parce que la la géej gi amatul jën état nañu dimbali état na dimbali jeunes yi xale yi am na jom de dañ gisul lu liggéey am nañ jomm nañ leen jàppale bu baax a baax. mais tamit est-ce que est que est-ce que ñun war nañ dépendre rek ci état tamit loolu tamit beneen problème la Maguette. non côté waruñu dépendre tamit ci euh, état. non côté bato yi laay wax côté bateau yi ay licence de pêche yeeg boo ko nangulee ñi bañal ko ñi boo ko nangulee euh, tubaab yi bañal ko sénégalais yi ñoom bu demee ba ay côte Mauritanie di di di napp ko tamit dañ leen di interdit ñoom dañu am tout le temps ay difficulté foofu noonu. foofu laay waxee état foofu la war a ñëwee mais nekkul état mooy defal nit lépp mhm. liggéey yu ndaw yaa ngi fi. sànq wax naa la jaayam café bi jigéen ñi une bu jotee ataaya la ñuy gàddu bañ ku leen yab ngir dundal seeni njaboot loolu mm-hmm. waxante dëgg mm-hmm. gaal daal jël gaal di dem mooy dernière solution dernière laas te sax du solution dan amul pexe xëy na waa peut-être ñàkk pexe la ñàkk pexe pexe la tamit de màgget mm-hmm. mm-hmm. parce que boo seetee ni ñuy jëlee gaal gi man daal sama problème mooy que la fait que ñuy jël trois cent ba quatre cent mille dem di ko jëlee gaal te boo gisee am na video yi nga xamante ni ni bu ñu demee ba yegg si Espagne da ngay gis nu ñuy dawee di dem di dugg ci biir ci sa yaram bi day parce que tubaab yi dañ dañuy tuutal en fait mm-hmm. dañu naan ñii mais ñii lan la ñuy def da ngay gis ñoom ñu génne seen téléphone yi di vidéo et man damay rus dama naan waa mais ñun lan la c'est quoi c'est quoi le problème en fait mm-hmm. lan moy problème bi pourquoi ñi di dem di def yi nga gis tubaab bi dañuy gëna toutal tuutal gën ñoo suufel munoo mm-hmm. taxaw ci kanamu tubaab nga yëkëti sa bop wala nga fi di sa bop parce que ëllëg ci bi dina la né yeen fi ngeen jógewul daw seen dëkk mm-hmm. ñëw fi ni di daw ci suñu plage yi looloon yëpp di dakanté ak policier yi nak bo leen démé bop sa bop lay doon waaw en plus jeunes ni aussi man dama xamul kan mo leen wax ni tubaab bi dañ soxla instant bi main d'œuvre

benen benen benen lolu benen problème la quand mm-hmm. on parle de Covid-19 mm-hmm. xamnañ ni Covid-19 dafa laal économie mondiale mm-hmm. du du suñu dëkk bi kese en fait dafa laal économie mondiale donc tay di ni mais ak lu mu munti doon ñom seen ay jeunes jëluñu gal di dem xam nga kon fi la gëna a fii nii surtout en Afrique particulièrement ñun Sénégal lañ nekk Sénégal lañ xam mm-hmm. donc fii la gën a méttiwee mm-hmm. euh, man daal li may li may li may wax rek pour ñu jeexal rubrique économie bi mooy que nañu waat suñu xel mm-hmm. xam nga démb bu nekkee dañ doon jàngi ñu jàngiwaat wala ñu créel suñu propre suñu propre emploi xam nga propre entreprise parce que lu ndaw mooy dem nekki entreprise bu ndaw boo ko ci fullaalee sa bopp fay daal ci sa bopp mën na doone ji lu mm-hmm. nga parce que lépp gëm sa la lépp gëm sa la aussi ñu leen euh, investir ci mm-hmm. euh, parce que boo jàppul ci dara doo mën a toog di Ami Batou loolu moom dëgg la boo jàppul ci dara doo mën a toog investisseurs yi donc ñu ngi leen di lancer message ngeen dimbali xale yi ban mën a toog ci réew ok euh, ba tey euh, ami téléspectateur de la Sam TV gaynde de l'actualité gis ngeen waxtaan bu am solo bi nga ni amal nañ ko ci rubrique économie te ni ñu doon en début ci euh, récession économique bi léegi nag Maguette dama lay bàyyi rek nga daal di ci santé bi ñu daal di xool. ci ah, waaw Abibatou bu ñu ci santé bi ne dañuy wax lu li ñuy waxtaanee nekk lu dul Covid 19 bi nga xam ne moo réew mi gaakaay mi ngi sax mais. Euh, nit ñi gis na ni ñu ngi bàyyi seen loxo respecté tuñu mesures barrières yi euh, Abibatou yow loolu loo ci xalaat waaw man sama problème du leen lu dul covid 19 bi ga démb xaw ma trois cas lañu am hmm. exactement ay quatre cas ngay dégg hmm. fan yi affaire yooyu noonu alors qu'au bi da ngay gis ay plus de deux cents cas et tout ça ni mu wàccee dafa grave en fait hmm. te gisuma kenn kenn kenn koo xamante ne nii respecté ti na mesure barrière ba ci man mi sama kaw boobu mhm. xam nga mhm. takkatuñu masque normalement mhm. yaa ngi dégg amatuñu ay distance est-ce que ñu ngi sax raxas loxoy ba tey loolu yëpp problème la alors que dëkk yi nga xamante ni comme France tey jii ni am na yenn ville yoo xamante ni dañ leen confiné waat Italie am na ville yoo xamante ni dañ leen confiné waat loolu man daf ma daf ma jaaxal en fait magget daf ma jaaxal trop ni ko waxee Europe temps yi waxoon nañ beneen vague corona dina am euh loolu sax mo waral confinement wu France bi mhm. Espagne aussi am na ville yo xamni dañ leen confiner mhm. euh pourquoi pas Sénégal waxuma confinement waxuma li pourquoi pas ñu baña respecter les mesures nañu respecter les mesures ñu den dañ dañ bëgg xey gis ci journaux ñu ni 0 cas nga xamni ni El Mamadou Ndiaye mi yor euh, walu communication bi tay day taxaw ni tay de je vous présente 0 cas mbaadu 0 cas ñu ni Sénégal tay 0 cas la am ah mais loolu est-ce que est-ce que genre est-ce que population bi tey jii nii pare nañ pour loolu en fait parce que boo xoolee màgget nekku Covid 19 kese moo fi nekk gis nañu feebar baa ngi commencé di wàññi mhm. mais jamono jii ni boo seetloo AVC yi bëri na. AVC yi bëri na décès yi bëri na te décès yu bëri boo xoolee li ko indi soit boo xoolee si hôpital yi dañ naan la AVC la xam nga wala bu nekkee ci côté jigéen ñi tamit euh, li nga xamante ne ni mooy cancer du col de l'utérus tamit mm. dafa bëri mm-hmm, mm-hmm. cancer du col de l'utérus xam naa ne après incha allah dinañ ci def benn benn benn recherche maak yow ñu jéem a approfondir bu baax a baax mm-hmm. parce que lu touché lu touché euh, cellule féminine bi la bu baax a baax fii ci Sénégal waaw Abibatou cancer du col de l'utérus comme ni nga ko waxee lu touché euh, cellule féminine bi la aussi te ñu bëri dañ ragal ñu bëri test bi même boo nee test bi c'est c'est gratuit ñu bëri duñ ko def duñ ko nangoo def ndax dañ ragal euh, xam naa d'ici d'ici si quelques jours dinañ ci amal benn waxtaan bu yaatu euh, wax jigéen ñi euh, def benn sensibilisation par rapport ak cancer du col de l'utérus aussi en Covid 19 bi man chaque jour dama koy wax zéro cas lañ bëgg zéro cas lañ bëgg mais est-ce que population sénégalaise bi ah pare na pour déglu zéro cas parce que mesure yi dañuy waat yàcca yàccaaral xew yi sama genre jigéen yi xew reprendre na dëj yi distance yi dañuy kolente ñap colma ñap lañuy def légui mhm. takatu ñu masque transport yi mo dañuy fees ba yu reet légui tay avec ces genres de pratique wala méthode yooyu noonu tay est-ce que mën nañ xey ni Sénégal am na zéro cas légui man la question que je me pose réellement c'est que ak li nga wax ni on respecte plus les mesures barrières mm-hmm. distanciation physique yi moom n'en parlons plus mm-hmm. est-ce que xam nga amna ben enquête bo xamanteni ni nii jotoon nañ ko amal ci jamono yele na la dañuy wax que ni amna ñu bari sax xamuñu lan moy coronavirus bo waxe rek dañ naan la fièvre la rek buy ah, wàll lool moy wane ni sénégalais ñu jotu sax toog deglu cas amna wala cas amul wala ñi ñoo contaminé ñi lañu contaminé wul wala ay cas communautaire yooyu noonu yëpp lijjanteetuñ ko jamono jii li ñuy lijjanti xam nga lu mu doon utum xaalis kese waaw c'est ça utub xaalis bi parce que biir bu feesul moom du mën taxaw wax nga dëgg <laughs> utub bi kii naa loolu de santé bi. waaw d'accord léegi nag dama lay bàyyi rek nga waaw fii lañ koy yemale tey seen rubrique santé ma nekkoon soxna Maguette Thioub doo leen ko rendez-vous fii ak ay bés incha ami téléspectateurs compte de la santé TV gaine de l'actualité qui ngeen lii lañ leen indiloon manak, ak soxna Maguette Thioub euh, ci rubrique économie ak santé inshallah.